jërë ngeen jëf mbokku internetu Actubuzz ñu amati mbégte ak kontaante saa su nekk ne la ne demee parce que nag saa bu ñu nekkee ci li nga xamante ne mooy ci réew mi nekk tamit ci li ne mooy tey ci programme réew mi nekk ci actualité nga xamante ne tamit mooy ci dëkk bi mais toujours dañuy fas yéene di seet ci yenn kilifa yi nga xamante ne tey am na leen yàlla may ci côté ñaan am na leen yàlla may tamit ci li nga xamante ne mooy ci côté sunguf ak reen ki nga xamante ne mooy Thierno saw ñu ngi ñoon ko gis trop nag mais mu ngi si jàmm ak salaam ba tey nag ñu ñun waa Actubuzz ñoo seet ci ko fas si sikka moom ay waxtaan yu baree bare bare ci li nga xam ne mooy réew mi parce que ñi dara ñor leen lu dul Sénégal parce que ay doomu Sénégal ay doomu réew mi lañu dañuy yëkkati seen i alal di ko def ci réew mi di ñaan tamit ci réew mi yàlla def ci jàmm buñ demee ba toll benn jamono nag fekk ñu ñëw seet si leen pour ñu waxtaan li nga xamante ne tamit di jëm ci côté réew mi tuuti parce que gis nañ ay fan yi néew nii li nga xamante tey mooy diggante Ousmane Sonko ak ki nga xamante mooy président Macky Sall dañ koy bàyyi mu nuyoo Thierno Sow ñu ngi lay nuyu waaw asalaamaaleykum aousubillahi min asheytan irajim bismillahi rahmani rabbi yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli gannaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi di leen sant eh, yéen ñi ñëw fii teew fii tey di leen ziar bu baax di leen ñaan yàlla eh, di ñaanal tamit àdduna képp nga xamal ni yaa ñuy seetaan nekk bitim réew ak ci biir Sénégal ñu ngi lay ñaanal jàmm ak salaam képp ku tëdd laal hôpital yal na yàlla fëgg sa bopp ba nga ñëwaat ci société bi képp ku nga xam ne caabi féete na gannaaw yal na yàlla dimbale ba nga ñëwaat ci société bi jaay si dul wujudi maa ngi lay nuyu abu di la ziar bu baax. waaw ah, jërëjëf Thierno Sow saw ngeen li nga xamante mooy kàddu yu nuyoo mais damay duggee yow rek ci ponk li nga xamante ni tey mooy état du Sénégal jamono ji gis nañ mois de mars li fi amoon bi passé bañ am si li nga xam ne mooy 14 morts ay xale ndaw ñàkk seen bakkan buñ gisaatee tamit ci réew mi lu mel noonu bu ko fi yëngalaat cooloon dafay amaat dañuy teel a dox suñuy tànk waxtaan kilifa yi nga xamante ne tey ñu ngi ci réew mi diggante ki nga xamante ne mooy président Macky Sall ak ki mooy président Sonko lan ngeen ñu ci mën a wax. waaw Abou maa ngi lay nuyu di la ziar dinaa sawar wax loolu. xam nga man nekk naa nit ku nga xamante ni tamit euh, dama xaw a maandu mm-hmm. ndax euh, nit ki tamit bu fekkente ne joxoo lu mu lekk joxoo lu mu naan mm-hmm. te xamoo ko tamit danga nga war a maandu si moom mm-hmm. waaye nag yàlla def na ni ki nga xamante ni moom moo jiite réew mi moom xam nañ ko bu baax a baax a baax yàlla def na nag Sénégal nag xamuñu yàlla xam na ko borom biddéew bu mag la borom biddéew bu mag la ndax euh, boo jëlee tey almul ko mooy buur mooy alif laam miim laam keef mooy buur tey almulk boobu ci la yàlla tey sedd sedd si ay yonent sedd si ay waliyu sedd si ay boroom kilif sedd si ay président képp ku am ndombal tàng si àdduna bi tey ci almulk boobu la la yàlla compal jox la yàlla nag bu dindee almulk bu dindee alif mu des mulk kese moom yàlla kese moom moo ko moom mooy wax qudratun iradatun ilmun xayaatun samun basarun kalaamun yàlla rek moo attan yàlla rek moo xama ni mooy qudratun mooy kii mooy kii attan koo xamante ni du mos a jeexal doole mm. elmun yàlla rek moo xam lépp la xam mooy aalimu kulli fanin xayaatun mooy ki nga xam mooy dund te du mos dee samun mooy kii dégg te du mos a tëx mm. euh, xayaatun samun ilmun maanaam yàlla daal ci gàttan lépp mooy lépp léegi ci mulku boobu yàlla kese ko moom mooy ki nga xamante ni du mos a dee laa ibtidaa wala intaha amul fu mu commencé amul fu mu yem léegi nag mulku boobu ba jëlee tur Macky Sall Macky Sall Macky mulku la léegi nag ñu bari xamuñ loolu biddéew Macky Sall du biddéew bu ndaw te tawit wax la xam nga bu fekkente ne ñi nga xamante ni dañuy dem Daaka xam nañ fu nekk Daaka Daaka Madina Gounass tey Macky avant mu nekk dara ci biir Daaka bi ci mbaaru ñax yi laa doon toog di jaamu yàlla di def foofu Daaka ànd ak ay njabootam tey yàlla def ba tey ba mu nekk président musul tarde Daaka te daaka ma den gunaas nit du ñaan yàlla yàlla di es maanaam du ñaan bi di bañ a nangu mm. te eh, tey eh, daaka bi passé ñetti président ñëw nañ foofu Adama Baro ñëw na foofu président Guinée bi ñëw Macky na ñëw na foofu ak yeneen ñoo xam ne ay colonel la ñoo xam ni tey mm. dañoo commencé nanda daaka bi xam nañ ñaani foofu lañ nekk Macky Sall dafa am ñu nga xam ne ñoo ko téye ngemb ko mm. loolu daal mun naa ko wax ki xam ne mooy keneen nag mënuma wax Euh, ndax xaw ma ko mais xam naa ne Macky Sall moom loolu lu ma leeral nu ma leeree na man dinaa dee noonu la ma leeree Macky Sall biddewam mhm. du ay wax kese moom mooy li nga xamante ni moom moo ko fi jëlee xanaa yàlla si boppam mu nàmm mooy mu naan euh, maanaam moo yàlla mu ni faalu lima yurid man maay def lu mu neex te tamit mooy joxe nguur wa anal mulku bi yadillahi yuti man yasa wallahu zul fadlul azim loolu moom lu mu leer la abu waaw loolu laa si doon leeral mais jamono ji noo gisee taxawaayam ci réew mi xam nga ci côté innovation bi mu def ci Sénégal tabax ak ay stade rafet defaxal ñu li nga xamante ne tey mooy léegi dem ak dikk bi pour mu yomb waaw lan nga gisee loolu ci président Macky Sall ak liggéey bi mu fas yéene sumbal Sénégal ak fu mu jëmale Sénégal. waaw xam nga mm-hmm. Abu. ci wàllu dafa man nekkuma nit koo xam ni damay dugg si wàllu politique. Mm-hmm. loolu moom dese naa si am xam-xam. mais lu ma leer si wàllu biddeewam lañ doon wax. Mm-hmm. bopp Macky Sall. ñi nga xamante ni ñi génn si réseaux sociaux di ko sànni di wax si moom mais wàllu politique moom wax dëgg faal nekkul samay kii ci waaw kii samay domaine waaw waaw jërëjëf Thierno Sow loolu leer na dégg ngeen li nga xamante ne mooy li ñu waxtaan waxul ne ci côté politique mais dafa wax ci côté li nga xamante ne moom domaine am la ci côté li nga xamante ne mooy ci biddéew ki nga xamante ne mooy président Macky Sall mais tout fa damay xaw bës a yow tuuti ci li nga xamante tey mooy ci mbirumu ñaan gi ngi mbirumu sunguf ak reen tey di ngeen faral ku ku tëju waaw abu xam nga ñaan moom boo xoolee sax euh, ñun lépp lu ñuy def si ñaan rek lañ ko amee ndax euh, ñaan nit dina dem bari ay gàllankoor bari ay jafe-jafe lu mu dugg mu tas yaakaaram tas moom mu xool xam ni moom kat lii euh, du yoon ma am na avenir am na connaissance bi am na xam-xam bi mais affaire am tey dëgër benn fexeel say waajur ñaanal la bu fekkente ne tamit Euh, nit ki nga xam ne dafa tëju affaire lépp dafa dëgër am na façon ñaan bu ñuy wax samp nit ki boo xasee ba samp ko lu mu yootu si àddunaam yàlla de koy ubbil maanaam mu ngi mel ni biddéew bu jóge si suuf jëm si kaw kenn du ko téye ku la ku la liggéey day delluwaat si kawam ku la catu day delluwaat si kawam ku la botu day delluwaat si kawam te yàlla da lay ubbil da ngay ubbi buntu te yàlla dalay neexal ak nit ñi mm. yaram bu neex mooy lépp nit nag boo xasee am na ñoo xam boo xasee sampu leen mm. dañuy mun nga leen defal ay ñaan ñu dem ba yàgg affaire bi dax affaire bi taxaw mm. mais ñaan daf am yoon ku ne ku ne dafa am loo ko war a ñaanal su fekkente ne samp bu ñu xasee ba samp la incha allahu loo yootu di nga jot loolu tamit dañ koy liggéey ci wàllu ay sunguf am na chaque jour maa ngi koy wax mooy ɓokki waabi jàmmi guy gu boot daxaar guy bu yéeme c'est rare nga gis ko guy goo xam ne ni xam nga guy goo xam ne ay jinne ñoo fay nekk dëkk waay la foofu euh, day boot daxaar xam nga daxaar dañ koy lekk buy dañ koy lekk loolu nag doo ma si mën xuut am na secret bu ñu siy def moom la ñuy sampee nit bu ñu xasee boy am am na beneen sunguf tamit bu fekkente nit ki dafa bëgg biddéewam yëkkatiku maanaam dafa bëgg am mbooloo bëgg am lépp bayre neex bu fekkente am na benn sunguf bu ñu naan euh, taw naaki mhm. taw naaki fuɗo tako dow lekki maanaam ci kaw garab lay sax mm. boobu waaw garab sax boobu mooy tawnaaki bu wert la boobu boo ko dee jox nit waaye nag bu fekkee góor la na moytu jigéen boo moyen rek day dem bu tey jigéen tamit noonu mais sunguf bu neex la am na bi ñuy wax sunguf kilifa yi mooy sunguf sunguf euh, bani mm-hmm. bani sunguf bani boo ko dee jël dangay sol yére yu rafet mm-hmm. nga nga def parfum yu neex mm-hmm. ngay tàgg sunguf bi di woy sunguf bi di neexal sunguf bi ba dagg si li nga war a dagg jël sarax bi nga war a defal euh, garab bi nga jox leen ko billaahi wallaahi sunguf boo ko daggee bu koo ko jox boo sangoo affaire day neex waaye ñu bëri dañuy wax sunguf xamuñ sunguf sunguf dafa am ko moom bu fekkee sunguf dana yàlla jolof ñoo ko moom ñun suñ suñ foofu ñoo ko moom waaye nag euh, euh, loolu te suñ suñ dëkk dafa am ñaan ndax sëñ Tuuba dafa jaaroon ñaan foofu mm. garab yooyu lépp loo fa dagg garab yu weex tàllal la maanaam loo ñaanal ci nit wàllu ubbeek da koy am waaw loolu yàlla def na loolu mm-hmm. bu fekkente ne tamit wàllu fas dañuy fas mm-hmm. diggante nit ak nit am na ñetti fas yu ñuy def benn fas bi dañ koy wekk si benn garab mm-hmm. ngelaw bi da koy ëff xelam day nekk si nit ki am na beneen garab am na beneen fas boo xam dañ koy sëfu dis nit ki nu la a bañal dara bu fekkente ne da nga bëgg takk jabar wala koo xam da ngeen bëgg da ngeen am problème loolu mën na si ñaanal yàlla tax waaye du def lu bon duñ ko def bu fekkente ne tamit da bëgg euh, kaaraangi am nañ kaaraangi bu yéeme abu am na am na waaw surtout li ñuy wax euh, dégg naa comme li nga doon wax sànq jigéen ñi nga xamante ni. Euh, dégg naa xaw ma TikTok dañu si dugg. Euh, ñu leen si def xaw ma lan di dee dee yi daa bari ci wàllu loolu te nit dafa war a moytu cat. nit dafa war a moytu lammin. Mm. lammin moo gën a bon lu yàlla bind lammin moo cat moo bot moo gën a bon lu yàlla bind. bu fekkente ne cat nga bëgg am na benn liggéey bu ñu ci liggéey ci tabbat yadaa lañ koy liggéey. tabbat yadaa am na bu ñuy bind nguunu ngaan am na boo xam ne dañu koy maas am na boo xam duñ ko maas na boo xam duñ ko tomb ñett la ñu liggéey ñu wut lu ñuy wax mbott bu dee mbott bu ngay dem rek ba gis benn mbott bu dee loolu lañ si liggéey billaahi wallahi du ma mën xuus si secret képp ku la liggéey mm. wallahi day faatu te ku bañ ku la bañ la da ngay sentir da ngay kooku day xam ni dalay dalay day tiit day xaftalu loolu liggéey bu garaaw la loolu tamit nekk na secret boo xam ne boo xasee def ko billaay wallaay képp ku la catu day am problème képp ku la ku la ku la liggéey moom yéen waxatu ko te liggéey boobu dafa am lu ñu koy liggéey am na liggéey boo xam ne benn garab boo xam boo koy dagg doo sol sax yëri te ku la gis day dee wallahi al azim benn xam nga xam-xam yu ñu yor dafa dafa bëri dafa bëri te man ah, du ma bëgg wax ay samay xam lépp ci ci ci publiquement comme du leen mën a bañal tam àdduna bi moo toll foofu tey foog nga génn wax Mhm. ndax waxkat yi bari nañ léegi da ngay jékki-jékki jóge rek naan sëriñ sëriñ mhm. dafa am ñu ko moom xam-xam dañ koy jàng ji xam dañ koy jàng ji mu nga nekk sa maam nekk sëriñ sa baay nekk sëriñ fekk yow sa jëmm bopp doo sëriñ mhm. sa maam sa baay bu nekkee sëriñ da koy da koy jàng ji nee nañ xam-xam dañ koy jàng barki dañ koy nàmp euh, maanaam bis dañ koy liggéey li naan barke musneti gandal jangete ñalaande liggete ko noon fulɓe mbi waaw léegi nag euh, loolu lañ doon amoon lu ñu leen waxal ñu di ñaanal euh, képp ku nga xam ne yaa ngi ñuy seetaan ak koo xam ne yaa ngi nekk si àdduna ak bitim réew yëpp ñu ngi leen ñaanal jàmm ak salaam képp ku fi nar a ñëw yàlla na sa aaji faj ku fi naratul sa aaji yàlla bu ma la gis maa ngi leen di ñaan yéen ngeen def ñaan auzu billahi min sarril kufara wa min sarri nasara wa min sarri seytaani nin wa jinnin wa jinnin summa jiradin famnin wa aynin wa shayatini wa jalimin wa munafiqin wa zi hasadin wa man tasabsaga ya rahmanu najini wa min nasari wa man qafaw tariqahum yallahu yahayu ya man gala aduuni inni daawatuka jaa xawfun faxun bi yadi yaa jaa ilal haali bayna al kahfi wa nuun allahumma salli ala sayyidina muhammad